agression bi nga xamante ni jot nañu les premières images yi nga xamante ni neexut a xool lool. Mhm. di jëf ju ñaaw ñu koy naqarlu bu baax a baax et di demander aux autorités ñu jóg parce que lii ce ne pas normal. ci koo xamante ni liggéeyam moo di tasum xibaar du rek yoon ci koo xamante ni citoyen nga liggéey ba ñibbi ñu dogaale la def la nii ñu la def li wax na dakk lu ñaaw la Mouhamed euh, man bi ma gisee image yi. Euh, vraiment loolu laa ci njëkk xalaat et puis mu nekk euh, nag vraiment soxna su jàmbaare il faut nit ñi moom it ànd ak seen xel ànd ak seen sago euh, xam nga taskaru xabaar yi man je pense que nekkuñ pour Massamba nekkuñ fi pour ba liggéey la ñu def te liggéey bi nag nattu la rek ak passion muy bëgg-bëgg je crois que tey lii nga xam ne kon amee na ci suñu jigéen boobu di sunu naataango lu lu metti la lu ñaaw lu ñu ñaanal ko rek sunu borom defal ko jàmm ak tawfeex ba mu gënaat jàmm mais comme ni ko waxee yoon la encore une fois kilifa yi gën a attu kaaraange askan wi rawal rawatina ñi nga xam ne kon ñoom la ñuy liggéeyal te fi mu nekk xam nga foofu mu noone amul kaaraange. Mhm. parce que mu ngi face gendarmerie euh, mu nekkoon loo xam ne vraiment mbir mu mbir mu ñaaw la. mbir bu euh, bu ñëpp di naqarlu la vraiment mu nekk lu metti nañ ko ñaanal rek borom suturaal ko defal ko tawféex bu mu génn ci jàmm ak salaam mais je pense que lii nag beneen débat boo xam ne mën nañ si ko poser que dëkk bi fi mu ne nii euh, dañ lay dégg sax nga benn wax rek ñu catégoriser la dëkk la foo xamante ne dëkkoo fa te nag loolu am loo xamante ni nag euh, vraiment je pense que xajul Sénégal te waru am ci Sénégal mu nekk nag image yoo xam ne yu ñaaw la mais yu méttee sax di xool ñu mhm. masaw ko bu baax a baax may mën a ndur fay Thank you.